cey sama réew Fall 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem kuy topp Fall 94 Walf Sénégal seen analyse corona yi nga xam dañ leen defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew leen siyaar nañ leen way leen di topp Fall 94 Walf Sénégal cey taal leen yàq leen taal yàq taal yàq rek maanaam sama réew daal xàmmeetuma ko dëgg yàlla daan naa tiituroo sama réew réew mu ma daan dem dama daan siggi ni sénégalais la dama doon am fierté gars yi boo waxee sénégalais laa dañ lay xoolaat te li may wax ni gars yi xam nañ ko ñi ci diaspora bi mais léegi loolu tey voilà ñu egg si foo xam ne ni wax dëgg yàlla man jàppoon naa ni de Sénégal lim daan gis ci réew yu sori nga xam ni daanaka mën naan dañ doon am fierté ci ni ñu mel ci sunu démocratie gi ci ajo loolu yëpp rek kon yaakaar naa ne bu réew mi tolloo fii nii ñu naan waaw taal yàq taal yàq ci loo xam ne xamuwoon ko woon sénégalais yi loolu nekk na loo xam ne nii. ah lu doy waar la te lu sérieux la te loolu war na nekk loo xam ne ni war nañ cee jël ay matukaay bu baax a baax a baax a baax ndax mbir mi liñ naa buy door a door par ndànk-ndànk noonu ñuy def noonu di ko xeeb mën naa dema dema dem ba doon lu rëy te yàlla nañu yàlla musal ci loolu noonu ndax Sénégal nag réew yëpp dañ koy tiituroo ndax depuis longtemps ba léegi niñ leen xamee woon ci yar ci teggin yooyu yëpp daanaka mën naa dafay dugg ci euh, biir développement day dugg tamit ci euh, lii nga xam ne moo di démocratie voilà parce que xam nga loolu la ñu xam waaw kan nag nañu gën a xoolaat bu baax ta xam ni lii